yor contrôle bi déggaguñu leen nag ba fi mu toll nii xëy na téléspectateurs yi tax ma koy wax du ñàkk leen a ndax wax dëgg fa yàlla sollicité nañu kilifa yi yor takk der yi ci anam bu ne ñoom ñoo soobewul nag pour ñëw bokk ci waxtaan wi ñu nangul leen ko waaye nag redevabilité aussi mooy vraiment yor responsabilité mbir xew di débat national nga ñëw toog wax ak nit ñi loo xam ne ni mën nañ koo dégg parce que débat bii defe naa ni li tax ñu tuddee suñu mbir mi sursaut national wane na ni débat national la. ñëpp a ci war a dugal seen loxo. te du débat wu joxoñ nit diw yaa def nii wala yaa wàcc mais dañu toll tolluwaay boo xam ne peut-être waxante dëgg jot na yu nii nag ñoom rek lañ ci déggagul. particulièrement gendarmerie parce que bu ñuy wax aussi euh, force de sécurité yi. xëy na zone gendarmerie la accident yu bëri di amee donc doon na baax aussi bu ñu leen woowee wax dëgg fa yàlla ñu ñëw toog parce que seen i agent ñoo nekk ci tali bi lu bëri dañ koy wax ci ñoom ñoo mën a layal seen bopp ñoo mën a aussi xëy na engagé wu comme ni autorité administrative yi politique yi engagé woo ne la woon day dana woon ni parce que ñëpp am nañu njuumte ci yëf yi chauffeurs yi nangu nañu li nekkoon seen njuumte ne nañ ko jubanti donc force de défense et sécurité vraiment ci société bi lañ bokk te war nañu di wax ak nit ñi bu lu mal nii xewee ñu solliciter leen sa fait une semaine ñoom rek ñoo waxagul voilà tey nag perception bi nit ñi am waroon naa mën tax ñu ñëw bokk ci waxtaan yi loolu rek la mais bon suñuy buntu ubbil nañ leen ko yaatalal leen ko bis bu ñu bëggee mën nañoo bokk ci waxtaan yi Dramé Seck fii euh, Tidiane Ndoye